del déglu del xool Feeling Dakar site bi jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Dakar di am info yu ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Dakar Dakar ngeen jëf ami internet Feeling Dakar TV mbégte ak bànneex di jàkkaarloog yéen saa su ko actualité woote tey nag comme d'habitude ñu ngi Wakam dem ci docteur euh, Serigne Modou Boussa Dieng bi nga xam ni moo jiite euh, famille religieuse yi ci bëri ci ñi nga xam ni rek ñoo yëngu ci wàllu diine. ñu amaloon ak moom waxtaan bu am solo jëm ci élection présidentielle yi analyse pertinente bi doon wax. ñu gis ci lam ci doon wax yëpp euh, gis nañ ni njariñ la ci askanu Sénégal tey nag ñu dikkaat ak moom nar a waxtaanee réew mi gannaaw bi élection yi jàllee sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay te di leen ziar euh, Abdou Khadir di nuyu sa liggéeykat yi ànd yëpp di nuyu sa internet yëpp merci. Mm-hmm. di la baal wax aussi ci euh, koor gi ñu jugee. Mm-hmm. sonal nañ la lool. yow nag pour ma baal la ak moom dina jafe yow moom na nga kiiwee trop da nga dañ kumpa. <laughs> alors euh, sëriñ bi euh, comme ni ñu ko euh, gisee le président de la république doon nañ ko critiquer bi mu jot jotee nguur gi ñu ne dafa war a dem ci famille religieuse yi dem seeti leen gis nañ bi bi mu defee quelque temps dem na Touba Mbacké ci sëriñ Mountakha Mbacké juge fa dem ci sëriñ Babacar Sy Mansour naka ngay jàngatee doxinu président de la république jëm ci kilifa diine yi. waaw au début. jaaxaloon nañu parce que si déclaration yi ñu def yëpp avant daf leen ignoré te loolu daaw ñu ko gis loolu tiitaloon nañ ñu bëri tàmbaleel ci man euh, après rectifié na ko euh, de bonne manière dem na fa dem bu rafet boo xam ne ñëpp rafetlu nañ ko y man donc loolu loolu rafet la mi ngi ci yoon euh, digganteem kii fi Guinée yi gisuguma lu ma ci saboté mhm. luñ ci attaqué wala luñ ci dénoncé na dem rek ci ñëpp yemale ñëpp kilifa diine yi moom kenn mu leen ci génne parce que parce que ñooy majorité donc même si su fekkee ne fàllu nga euh, ñoom jëluñu position ci yow mais teewul seen njaboot nga yilif te pouvoir religieux ak pouvoir temporaire ñoo mas a ànd mosuñu séparé képp ku tenté pour séparer leen mun nga bañ a réussir sa mission te toujours damay wax ne rek euh, bokk na ci li stabiliser pouvoir am ak li koy renforcer mooy mu am force yëpp te force bu njëkk Sénégal mooy force religieuse bi surtout les confréries donc loolu daal su ko defee euh, dina dalal liggéeyam su ko deful nag donc on su ko deful on parce que moom dëkk bi bañ a dal wala dëkk bi na ci tension wala mu jox beneen force argument yeneen loolu affaire am la loolu mais daal li def nii moo moo moo moo moo baax li mu def nii moo moo moo war a am en alors ah, ah, ci sa benn interview gis nañ nga ni euh, Diomaye Faye agréablement daf la surpris euh, ci mbégte la la bette euh, naka nga expliquer loolu. bon comme li ma wax rek wax naa ko waxati ko dama yaakaaroon ne salafiste la. Mhm. salafiste yi nit ñu bon lañ. Mhm. duñu nit ñu baax. c'est l'islam politique. Mhm. ku leen xam ca Mouhamed Ibn Abdul Wahab ba tey xam seen histoire Arabie Saoudite et partout fu ñu nekk. li nga xam ci nit ku baax mooy rey ak wax ak saaga soo xoolee seen sid li ci ëpp sax ci man sama kaw la ñuy daal bu ñu bëggee dal ci kaw euh, xulafaay yi wala bu ñu bëgg dal ci kaw turux yi man la ñuy attaqué man maa leen dàq jàng téeméeri ñu yoon fi ma dem demu fa ëpp ëpp leen expérience dama leen faalewul man li may liggéeyal nit ñu baax ñu fi nekkoon du ay benn benn salafiste ñoo a ci jëlee donc man dafa bokk ci sama rôle toujours may dénoncer position salafiste yi ñoom foo ñu nekk jàmm dafa am ñoom rey lañ jiital ñoom deret lañ jiital ñoom dañu ignoré l'islam ñoom benn gisin lañu am ci l'islam koo gisul ñu takk fiir la yéefar nga nit ku bon nga da nga yàq l'islam xamuñu l'islam parce que jànguñu ko xamuñu ne ixtilaaf am na ci diggante saxaaba yi xamuñu ne saxaaba yi seen bopp tolloo wuñ ci fahmul quran tafawut fi fahmul quran xamuñu ne tafawut ci maanaam euh, saxaaba yi ci boppam am nañ ixtilaaf fi baadi masail fiqhiya xamuñu ne xamuñu ne attendul addil la mooy xadis bu ñu indi am na beneen xadis bu wax le contraire te xadis yëpp day mën na nekk xadis yu wóor mais temps yi bokkul seen xam-xam soriwul donc salafis yooyu laa ma si combattre ci laa tegoon Diomaye Faye je l'assume néew ma Diomaye Faye def ma neex parce que dama changé discours dama ne Diomaye Faye li mu def neex na ma parce que dama honnête képp koo xam ne su defee lu bon am nga fitu wax ko ko su defee lu baax am nga fit war nga am ngoruk wax ko ko foofu la sëñ Modou si nekk mhm. soxlaa lu ma jomaay fay lii mhm. jomaay fay li ma am am ko mhm. fekk na ma jekk comprendre nga du moo may yokk plus wala moom ay wàññi plus sama position changé wul ci loolu simplement nag ki sama ngoruk bopp gi ma siq sama bopp d'abord mooy lépp lu ma gëm wax ko fii laa ne ginnaaw bi mu jugee euh, Touba jugee Tivaouane contrairement ak yeneen yi ko président yi doon defee bu ñu fa jugee dañuy dem directement France moom tey mu choisir les alliés les plus proches euh, Mauritanie et la Gambie naka ngay jàngatee euh, sorti boobu nga xam ne def na ko ci Mauritanie ak Gambie. Oh, amul amul impact loolu loolu ça n'a rien à voir loolu dara mu commencé woon France ak mu commencé woon États-Unis mu commencé Bissau ñooyam ça ne signifie absolument rien. président bu falu da ngay dem France. non comme ni ñu koy waxee. non jëpp loolu waxu nit ku bon loolu waxu opposants yi ñoo daan waxee noonu. loolu dara. Diomaye Faye xaar ko France dina fa dem. simplement nag politique internationale euh, ce qu'on appelle politique étrangère. kooku ressortu président la président moo koy définir moo xam fan la gën a yaakaar. fan la gën a tey ci ci CO e stratégique CO e stratégique bi am Mauritanie réew mu am solo la ci Sénégal parce que pétrole bi ñu bokk ñu ñaar moo tax. donc euh, dañuy jàng ci science politique ñu ne deux pays qui font de la business na ne ne la guerre. ñaari dëkk yu ñaari réew yu def business duñ xeex. donc actuellement Sénégal moo tax du ñuy def business moo tax. parce que dañu seq pétrole bu am solo. donc loolu xam-xam la il faut que nit ñi yegg foofu mais du lu du lu am solo politique étrangère président moo koy définir fu ko neex commencer et puis voilà. d' accord euh, ginnaaw moom tam euh, président de la république euh, le premier ministre. Euh, gis nañ son porte parole Moustapha Ndiek Sarré ni dafay bëgg a def déclaration de politique générale ba mu agité sax waa kujje politique bu yees gi di waa benn bokk yaakaar ñoom itam ñu ngi xaar benn motion de censure bi yeewi askan wi defoon en décembre ci gouvernement bu Amadou Ba euh, naka ngay jàngatee politique déclaration de politique générale boobu noonu ak motion de censure boo doon def benn jàngat ci diggante ñaar yooyu lay doon. motion de censure baax na yeewi askan wi dugul nañ ci motion de censure loolu. Euh, intensité démocratie euh, euh, démocratie sénégalaise bi la rek loolu lu baax la dugal motion de censure bu ñu amee bu ñu amee majorité ñu dindi premier ministre bi loolu loolu jaadu na loolu loolu baax na loolu intensité démocratie bi la loolu lu baax la assemblée warul sedd fu war a tàng la ñu war a am idée la simplement bu ñu ko def ci animosité mais nañ ko def ci kii je pense que Sonko premier ministre bu ñu ko fayee moom li mu fi def ci opposition dina métti ci moom trop moom opposition bi daf ko defoon radicalement de manière folle soo tegaatee tey ay waxam di ko indiwaat par benn ay position bi ni mu ko daan waxee haine bi mu ciy exprimé tàngoor bi mu ciy def tey buñ ko fayee dina metti ci moom trop. mais est-ce que am na opposition bu dëgër bu mën a mën a defante. waaw euh, non ñu daq ñu ko dàqat defante sax parce que foo fekk defante ka dëgg sax du borom fit donc. ñu ko dàq am na fii simplement xëy na préféré wuñ ko comme ni mu ko doon defee. parce que moom xëy na défensif bi mu nekkoon toujours moo tax euh, ñu bëri nekkuñ ci défensif boobu ñu bëri it gisee nañ ne ni mu ko doon defee baaxul neneen moo gën xëy na mais du question fit wala ragal fii Sénégal bariwul ay ragal. am baax xaw ma leen. dañ ko critiqué par rapport ak nam ci euh, côté président de la république euh, bokk na ci tapis rouge bi sax ñu ngi ko ci ŋàññ ci yu bëri. ndax gis nga ni Ousmane Sonko moom itam comme ni ko yéen ñi gisee dafa war a soppi doxalinam doxalinam jëm ci président de la république bi Bassirou Diomaye Faye. oui bien sûr parce que xam nga da nga njëkk a xam ne Sonko. n'a jamais été ministre. encore mooy premier ministre. encore moins présidentialiste. Sonko maire laa ko xamee député ak agent. agent impôt et domaine. Mm-hmm, foofu la personnalité mi amoon. Mm-hmm. kooku boo ko xëyee jox ko premier ministre mais dana jaar fu mu xamul. c' est que simplement na nangu rek protocole bi wan ko. Mm-hmm. ne ko fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar mu bàyyi ci xel. mais ba ñu fuga ba ñu jiital ne oui parce que ki fi nekk man maa ko fi teg di xool le président comme son boy il ne l'est plus di xool président. mais il a été modeste si palais bis nañ bi mu duggee du ma président loolu. damay wax rek li ma gis. Mm. donc président mooy jiitu ñu war a topp ci ginnaaw président protocole rek moo ko jiitu. Mm. tapis président rek moo ci jaar wala ganam. Mm. Eh, da ko war a woo ne ko yee eh, kaay lii ak lii ak lii. bu ñu ko defoo ci critique yooyu lay dëkk donc dañu wàññi populisme bi populisme jàll na ko contre Macky Sall la woon mais léegi soxlaatuñ populisme kuy dox di dam mag di jiitoo di këbër këbër soxlaatuñ ko li ñu soxla mooy solution c'est ça actuellement c'est ça sa personnalité mais ce n'est pas këbër këbër yi wane ne yow non 54 pour cent yi voté pour Diomaye Faye il y a pour cent qui ne votent pas pour Diomaye Faye 46 pour cent yooyu c'est presque la moitié des Sénégalais ils méritent respect ñoom bëgguñu Diomaye bëgguñu parti bi fay Diomaye Faye ñi ànd ak Diomaye Faye wote wuñ leen mhm. comme majorité bi dégagé na nag pour Diomaye Faye mais ñu respecter aussi la minorité c'est ça la démocratie voilà mais c'est vrai que loolu nga wax ñu bëri gis nañ ko mooy jiitu wala nangoo dox ci ginnaawam day wane ne comme sa comme si bon je ne sais pas xëy na loolu du lecture mhm. mais sénégalais ñu bëri lire nañ loolu mhm. d'accord ba tey ci Ousmane Sonko ngir gën a duufal gafak ak askan bi ordonné na à ce que yi nga xam ne ñoo ñoo doon ay bànqaas ci réew Eh, alal ji nga xam ne joxoon ba ci mel ni oto yi ñu yoroon wala sax eh, eh, villa de fonction yi nga xam ne dëkkoon na ca ñu joxe ko pour permettre ñu bañ a jëndaat yeneen yeneen oto ak yeneen mais il a parfaitement raison loolu jaadu na loolu rafet la mhm. li mu def noonu la ministre yu jeexal lu ñu doyee oto yu jàmbur oto yu état yow waroon nañu ko delloo sax ba Macky jeex bañ changé régime lañ ko waroon delloo ca bis bi mhm. ministre yi ñoom tamit euh, ñoom xam ñoom tamit nag seen comportement yi Sénégal dafa ñaaw ñaaw ñaaw ba mu ëpp. Mm-hmm. yow looy deeti oto looy xaar ñu la koy laaj yow oto bi c'était c'était voiture de fonction. Mm-hmm. kër gi këru fonction la woon yow depuis 24 mars nga xam ne changé nañu régime looy xaar loo fay def. Mm-hmm. donc voilà dañu la war a génne dañu war a dégager waa génne dégager ak si eh génnal c'est dafa am ministre yu bees te ministre yooyu dañu am na ñoo xam ne xëy dëkk yu Dakar dañu am fii war a am véhicule de fonction pour ñu jëndaat yeneen kay ñu jël yi fi nekkoon jox ko ministère bu nekk am nay oto c'est tout. d'accord. Euh, sëriñ bi euh, a euh, loolu itam président de la république ci conseil des ministres mu mujjee dafa ordonné woon à ce que rapport cour des comptes yi <coughs> rapport OFNAC ak IGE ñu publier ko ci réseaux sociaux yi ndax am nga mbetteel wala surprise ci rapport yi nga xam ne génne nañ ko. non loolu c'est normal dañ ko waroon publier. Hmm. rapport yooyu c'est public. Ce sont des rapports publics sauf un rapport écrit top secret. Hmm. boobu sañ ñoo ko publier boobu dañ koy destiné moom président bi. Mhm. pas keneen mhm. donc bu dul loolu les rapports sont publics dañ leen war a dañ leen war a publier li dul woon dëgg te Macky Sall doon ko def. Mhm. te mu bon ci réew mooy li mu ko doon nëbb. ak di tenté ak di voilà ak di tenté euh, protéger ñenn ñi loolu moo bon loolu li Diomaye Faye def c'est normal. il ne peut pas faire autrement keneen ku ñëwoon normalement loolu ngay def ça parce que ça rentre strictement dans le cadre normal des Euh, rakk ci Marème Faye Sall l'ex première dame épinglé nañ ko ak euh, Mamour Diallo affaire 94 milliards yi nga xam ne Ousmane Sonko soulevé woon na ko ba ñu dem assemblée nationale si tal Mamour Diallo tey bu ñu dikkaatee tegaat loolu ci place publique bi ndax jot nga dualité amaat ci dossier boobu ñu demaat ci justice. ñu ne sais pas c'est simplement am na conflit parce que. waa kër Mamadou Diallo nee nañ société Sonko yi ñu ngi ci woon. Sonko dafa bëggoon lu mu ci am Sonko boobu tey mooy premier ministre. mais ñu xam rek ne rapport rapport bu mu mën a doon. tout euh, corps de contrôle bu mu mën doon sa rapport amul lu dul valeur enquête préliminaire. Mm-hmm. c'est pas un jugement. parce qu'ils sont présumés. waaw présumés toujours innocents jusqu'à jusqu'à mm-hmm. jugement. d'un équitable. dans une audience contradictoire dans un procès contradictoire donc lii la su dul loolu euh, valeur euh, enquête préliminaire la rek amatul amu ci amul beneen valeur donc ce n'est pas diw épingle ko parce que diw kon sàcc na ce pas diw épingle ko parce que diw def na loolu yoon non loolu Euh, enquête préliminaire rek la am valeur am donc juge day demaat reprendre waat encore lépp parce que ci biir épingle yi mën nañu épingle nit jox ko ay recommandation administrative ne ko ni nga doxalee baaxul moom nga doxalee fii deux personnes nga fi jël nga fi benn personne fee ñett nga fi jël nga fi benn yooyu recommandation la am na ñoo xam ne dañ leen épinglé condamné leen donc voilà il faut ñu xam degré euh, ñu ngi kenn ku ne ci ban lañ xam mooy Mamour Diallo sax dañ ko épinglé diw nangam ñu ne oh diw sàcc na su ma xam nga da ngay dégg Aliou Sall suñ 6 milliards yi koy naan 400000 400000 Aliou Sall la ngi dox ci jàmm xamuñu ne état ak politique du benn justice ak politique du benn populisme ak réalité du benn donc diw sàcc na suñ 6 milliards 6 milliards fu ko ni di sàcc 29 milliards yi Sonko xoon ci Mame Mbaye Niang anamu loo ci déggaat après Mame Mbaye Niang ngi fii donte nag mën naa am xëy na ay na am na ñoom ñaar xëy na seen diggante gën na rafet léegi je ne sais pas. mën naa ci bañ a sori xam nga du mag lu ma xam lu ne lay wax. mais euh, daal ñu tey ci doomu jàmbur ñu yàq seen der yi. ñu tey doomu jàmbur ñu xas yi loolu tey Sonko waa këram dinañ ko xam dinañ xam ne lu bëri lu ñu doon wax dañ ko wax en tant que opposition mais buñ ci accès xam ne réalité du loolu. non non nag c'est normal parce que opposition moom il tire rek. ça c'est normal mais di nga xam ne réalité fi mu ne ce que ak populisme du benn. rapport fonds force Covid 19 bi plus de 1000 milliards tey koo xam ni en 2012 presque mënu la may benn 100000 francs bu tey tey mu am ay milliards ndax jàpp nga ni tey jii justice doit être faite. mais est-ce que justice day ñëw ne ko yow 2012 yow mënoo woon a may 100 francs tey am ngay milliards kay ma jàpp la. mais parce que ñu épinglé ci rapport yi comme ni ma ko doon waxee wa waaw mais déggoo na wax nee naa la rapport ku ko épinglé ku ne mais justice dina ko jël respecter les procédures. s'il est ak condamné bu coupable bu fekkee ne coupable ñu bàyyi ko mu dem c'est aussi am que ça il faut que ñu am confiance aussi ci juge boobu c'est d'accord mais li bañ mooy euh, euh, le verdict populaire mooy nit ñi li ñuy wax diw sàcc na. yow xamoo diw xamaloo diw dara te quatre-vingt-dix pour cent nit ñi haine la ñuy waxee. ak politique ak manipulation nit dañ koy manipuler ba mañ ci dee te fekk moom dañ ko manipuler. Mm-hmm. c'est tout. d'accord euh, général Moussa Fall. Mm. ak euh, commissaire Bokar Yade ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ni tey jii ñëpp a ngi naan na état def yoonam nañu leen arrêté nañu leen jugé euh, ndax d'accord nga ak ñoom ci euh, agitation yi ñuy def ci général Moussa Fall bu jiite gendarmerie. général de corps d'armée Moussa Fall Sénégal n'a jamais connu un fils du Sénégal digne d'un gendarme digne d'un loyal homme d'État mm-hmm. comme général Moussa Fall mosuma ko gis. aw ma sympathie sax ci Moussa Fall du tout sympathie particulière bu ma koy bu ma koy défendre damaa wax ngir yàlla. dama wax li ma xam. gis nga gendarmerie wala sax pour nappa pas tous les généraux à part Wali Faye général Moussa moo fi gën a fës ëpp ci rigueur ci gestion de la gendarmerie te Moussa Fall sax est exceptionnel parce que général Moussa Fall situation bi mu fekk c'est inédite. benn situation. mais moom mooy moom mooy moom mooy premier juin su fekkul woon Sénégal am général bu mel ni Moussa Fall état est définitivement tombé kon Sénégal tas na comme Zaïre comme pays ci des nga xam ne si am amatul ordre. Mm-hmm. général Moussa Fall petit exemple ma lay jox xoolal bi ñu paree pour taal terre bi jour jugement Sonko bu ñu taaloon terre bi est-ce que Diomaye Faye dina jël terre bi pour dem prêter serment xam nga ne terre bi. des milliers de degrés ci électricité moo koy fair déplacer bu ñu ko taaloon Dakar kenn du génn Moussa Fall a mis sa rigueur requise pour protéger le Sénégal sans mosoo ko dégg ci micro pourtant chaque jour dafa am soxna de am doom wala am ay doom chaque jour dañ koy yendoo saaga ci dul dégul tegul fenn ci manipulation ak yabaate ak reewande exemple sans gis oui mooy jour defe naa dañu convoqué woon dañu convoqué woon garde corps Sonko gendarmerie dem jëli ñu ne xoola Moussa Fall yebal gendarmerie jëli mhm. xamuñu ne force de l'ordre il bi mhm. mooy gendarmerie mhm. boobu la général de corps d'armée Moussa Fall jiite mais parquet ak tribunal de manière générale tribunal de manière ñoom seen patron lañ su procureur ne gendarme yi dem leen jàpp diw général Moussa Fall ci intervenir pour tee ñu dem jàpp diw am nañ autorité administrative aussi comme patron mooy bu paree ne gendarmerie na ñëw dëgër piir ñi général Moussa Fall mënu ci dara mais yow xamoo ci dara ay gendarme gis rek yow pour yow gendarme fu mu dem rek président rek général Moussa Fall yebal xamul ne kii est-ce que dafa yor mandat tribunal amu ci choix amu ci avis ST euh, euh, euh, bu ñu la buñ ñu la joxee soit transmis yow amoo ci amoo ci avis procureur def la def lu da ngay dem def mais ñu ko nee manipuler rek. moo tax ñoom service commandé mais effectivement. Mm-hmm. ñu naan Moussa Fall matin Moussa Fall suba Moussa Fall est le plus digne fils du Sénégal mm-hmm. indépendant ci côté force de sécurité ci ñi ma xam. Mm-hmm. ku xëy am jàmm fii Sénégal ginnaaw yàlla ak ñun liñ gëm Serigne Touba suñu waa ji. war nga ne Moussa Fall jërëjëf gis nga bu tombé woon la république taal terre bi. Dakar fi lay yem. kon tey jomaay Faye du nekk président donc yooyu la Moussa Fall si biir fan lañ ko teg parce que Moussa Fall était rigoureux tey Moussa Fall si ci ginnaaw Diomaye Faye lan la Diomaye Faye Diomaye Faye comprendre na tey lan mooy rôle Moussa Fall euh, général ko dammi Moussa Fall donc su fekkee ne yow ëllëg mun nga nekk président da ngay bàyyi xel ëllëg lu bëri damañ ko wax toujours neen ngeen xàmmee contours yi mos naa la ko wax yow sax mm-hmm. mooy quand Sonko a mis euh, le truc de RTS ci suuf est-ce que tey dina ko def. est que tey bu RTS joxee Sonko micro euh, dina ko tekki suuf. aussi ne RTS moom ba léegi. même même RTS bi la. Mhm. kon yow man ŋàññi moom du ma ŋàññi si RTS jamais ci mu ŋàññi waa mu teg pas passif mais mu teg autorité yi. Mhm. président Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko ak ses ministres. Mhm. parce que RTS li muy def mooy day def politique. accompagner l'action politique de l'État c'est ça la RTS du ab télévision privée mais kon li nga doon wax ci moom kon yow waxoo ko woon objectivement parce que tey bi mu nekkee à sa à ta faveur d'accord mm-hmm. mais bi mu nekkee faveur keneen tu n'es pas d'accord mm-hmm. loolu laa ko ne woon bàyyil xel ëllëg c'est le jour mm-hmm. moo tax gis nga ñun ñuy wax ñuy waxee xam-xam nañ leen déglu xam nga man su may wax baal ma ci baat bi waaye dama faalewul waroon naa gën a sori sax mais ma yem ci faalewu ma rek. ñuy neexal ay théâtre kat pour naa leen wax leen sëñ Modou nee nangam. man Ousmane Sonko mënu ma tee wax ci àdduna. bi ma amee problème ay sax dama ko waxal te daf ma ci gërëm sant ma ci santaan ma ci santaan ma ci di woo matin midi soir ma yor yi fii suma kër. ak ak Bignona ak feneen. sëñ Modou Bousso boobu fi nekk ba léegi. constance kay doxee. comprendre donc faalewu ay théâtre kat ñuy neexal naan leen noo wax leen sëñ Modou nangam. dañu waxoon dañuy wax soo jox sëñ Modou soixante-douze heures lu ñu ko waaye xamal soixante-douze heures yooyu xeeb naa ko mm-hmm. nañ indi quatre-vingts jours ndax mu tane ndax ma yëg ko parce que yëgaguma ko mm-hmm. damay bañ nag ne leen man du ma dem bërëb sàngam ak bërëb sàngam am ñu ciy gis seen bopp moo tax par respect mm-hmm. du ma yegg foofu parce que sama animosité dama koy mesurer mais buñ ko waree wax ma yegg ci amul problème mais li ma leen bëgg wax mooy sëñ Mor Bousso Dieng lu ko nit xamal ci àdduna pour jàng alxuraan ak tari ko soo ko waxul baalu ma la ko comment nit xama ci àdduna laa wax mhm. te du jàng alxuraan ak tari ko mhm. soo ko waxul baalu la ko je défie quiconque dans la vie mhm. Sonko est très petit très minime fekkoon ci yoon ci yoon boobu la ma mooy lu baaxul ma wax ko lu baax ma wax ko nekk man politique sociale laay def te moo intéressé moo tax may xëccooy poste su defee lu baax du ma xaar ndigalam ci wax ko su defee lu bon du ma faale kan la doon ci ma wax ko amu problème yooyu donc mais daal je reviens sur général Moussa Fall qu'on la respecte Moussa Fall l'histoire le retient il a évité le Sénégal de faire tomber lu premier juin lii laa xam ci moom lii laa wax ci moom su ma xamoon ci moom leen wax ko kuy wax président doo faale keneen ñu respecté ko te président bàyyi ko xel parce que ku mel ne général Moussa Fall pour Sénégal di soxla la waruñu ko bàyyi sax mu retraité dañ ko war a utiliser ko feneen ak feneen ak feneen ak ndax bopp la tey yàgg naa servir Sénégal ci problème Casamance yi itam gis na ni liggéey na ci liggéey bu am solo dama ne jàmbaar la d'accord ñu terminer ak euh, yëfi Casamance yi gis nañ le président Diomaye Faye depuis son accession au pouvoir euh, waxagul yeyagul yàbb ci euh, conflit le plus vieux conflit du monde muy conflit bi am Casamance gis nañ itam Madiambal Diagne tey ne ko conflit Casamance bi ne pas un sujet tabou tey lan ngay xaar ci moom ci li nga xam ne moo xew ci Casamance ak son mutisme noppi gi. non loolu Casamance moom rigueur u Macky Sall kese laa fa bëgg damay contre Macky yëpp. fu ma mas a tuddee Macky Sall nee naa leen réussir na Casamance. faire la guerre c'est aussi simple que ça te naturalise la rébellion da ngay ñoom bañ na teg nga naturaliser ko négocier. parce que négociation ak le soldat et la diplomate et le diplomate ñooy ànd. mais le soldat d'abord. te dégg naa kii wax mu ne mu ne l'indépendance de la Casamance est irréversible loolu ay kaf la loolu j'appelle l'armée. très rigoureuse faire le job. comme il a l'habitude de le faire naturaliser leen bañ na teg fii rébellion mënu fi am et puis léegi malheureusement je sais pas mooy xam naa leen bañ a ambal bëgg a wax ci ci pouvoir bu bees bi ñoom léegi rébellion bu ñu tawee dañuy teg seen drapeau Casamance mm-hmm. drapeau Casamance fan lañ koy teg à l'intérieur dans le territoire sénégalais mm-hmm. kooku moom dafa war a dakk te ñu bàyyi Sonko ñu bàyyi ñu bàyyi Sonko maanaam Sonko bu ñuy wax naan arrivé suñu suñu doom suñu fiis mm-hmm. nañu bàyyi Sonko premier Sonko n'est pas un, un, un Kassassé parce que Casamance double république. Mm -hmm. C'est un Sénégalais tout court. Effectivement. C'est mhm. Il est le am na sax lu ëpp solo il est le premier ministre de la République du Sénégal. Mhm. tey bu doon ñëw Touba man dañ may wàcce fële man ma ko sama maam moom. Mhm. ma juddoo fa màggee fa président Ousmane Sonko premier ministre Sonko su ma dajee moom dañ naan ma eh ma wàcc très rapidement pourquoi parce que le premier ministre du Sénégal. Mm-hmm. premier Sénégal nag du doomu Casamance mm-hmm. wala doomu Touba wala doomu Bambey. Sénégal la doomu mm-hmm. ñoom bu ñuy wax de seen waxi bétis rébellion yooyu. nañ ci génne bu ñu yàq deru Sonko de. bu ñu doomu Casamance mais un rebelle. président Ousmane Sonko. je le pense pas rebelle. je le pense pas quelqu'un qui soutient la rébellion. doomu Sénégal la bu ma sax xeex opposition sénégalaise mu doon jàmbaar bu wér keng taxaw fi xeex fi wane fi preuve am yu wér keng bañ fal ko mu nekk premier ministre mu continuer ci yoon boobu mais band yee hors loi yee rébellion yee mu bàyyi leen ak armée bi ñu maate leen ni plus ni moins d'accord euh, ban conseil ngay jox le président de la république ndax ku la xam-xam ni màtt nga ci am nga doctorat ci wàllum sécurité intérieure sécurité national euh, ci wàllum Casamance en tant que docteur ban ban ban conseil nga koy jox. Euh, master master de la am la am en sécurité. docteur doctorat la am euh, en économie islamique. Mhm. benn la li nga wax mais n'oubliez pas trente 35 ans d'expérience politique. Mhm. effectivement. acteur mhm. politique donc li ma koy digal yar bi de moom dina fay. yaram dina fay soo di ko teey ak ma ko bëgg ci kilifa yaru ak ma ko bëgg ci kilifa gisatu gu ma ko ci moom arrogance virgule te dafa dafa am luñ jàng si y a quelque chose pire que l'ignorance c'est l'arrogance moom vraiment l'arrogance bi moom kenn gisu ko ci yar bi boobu de dina ko fay xaw ma kañ lay doon ak naka la koy fayee mm. donc li ci des nag état est trop lourd état est trop lourd très très lourd même donc tey it ñu bañ leen réerale mook mook premier ministre Ousmane Sonko. Sénégalais wax ne radiyallahu taala anhu wa arda da doon wax ne euh, lijjanti Sonko mu ne. Bassirou Diomaye Faye laa tànn moo ma gën moom ma gën a baax. nañ ko jàppale ñëpp jàppale ko effectivement nag su ko ko tànnul woon parce que Diomaye Diomaye Faye du falu. ñoom ñaar ñu tuddantee doom di xarit ba nëgëni. ba agsi ci pouvoir pour l'intérêt tous les Sénégalais y compris man mi leen mosul woteel. jamais jamais jamais jamais. ma leen donc euh, seen liggéey nekk suñu intérêt ñun ñëpp. Sénégalais commencé. ñoom ñaar dañu am problème ñoom ñaar duñ yàgg ñoom ñaar di mais foofu amul problème bu ñuy bu ñuy waxtaan du pourquoi duñ yàgg. Mm-hmm. pourquoi amuñu des présomptions positives que ñii ñooy ànd toujours. pourquoi encouragé wuñ leen pour ñu ànd. Mm-hmm. pourquoi waxante wuñ ne pour ñu ànd ngir définitivement tuer ce petit débat de feu. Mm-hmm. dangereux mais dañ naan noo duñ yàgg ñoo dañ def ni wax nga ko léegi tu a posé la question pourquoi Sonko Sonko dox ci kanamu Diomaye Faye. xam nga maa ngi koy wax man. ay na man côté protocole laay waxee. mais nañu naan oh bon Sonko kon di Sonko day maire bu nekk mm. nañ bàyyi doomu jàmbur yi. nañ bàyyi leader yi. Mm. leen bàyyi ñu liggéey que seen liggéey suñu intérêt la ñun ñëpp. Mm-hmm. opposé leen contre leen par action taxul nga bañ leen taxul nga ne noonu nañ li ñu yor. Mm-hmm. taxul nga bëgg a suuxal gaal gi xam nga gaal gi ñu bokk. Mm-hmm. mais du ma ko suuxal parce que dama bëgg a gaañ Sonko. wala dama bëgg gaañ président Diomaye Faye. mais su boobaa fii ma nekk laa bëgg Sénégal yëpp ne fi dama leen ci invité ne leen ñu bàyyi leen te moytu wax te ñoom seen bopp it yaakaar naa xam nañ ko te yaakaar naa ne ils sont tous matures ñoom ñu bàyyi kilifa lañ am na expérience te dinañ ci mucc mm-hmm. te loolu laa leen yéene mm-hmm. salaamaaleykum wa rahmatulah. di firndeel sa kàddu yi li maam Abdou Aziz Sy waxoon boo duggee ci gaal bu ñaan sa ëmb mucc ñaanal gaal gi mucc ndax muccee lépp mucc ci loolu nga nekkoon depuis opposition ba tey 35 euh, ans d' opposition yaa ngi koy wax sànq intérêt askan bi moo la ñor intérêt Sénégal moo la moo la ñor itam ñu ngi lay jaajëfal ci sa constance di am mbégte bu baax di la dalal saa su ne ci suñu micro yi. yi leen jox di jaay yéen itam bokk internet du Sénégal euh, Feeling Dakar TV beneen yoon bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf. merci.